voilà les politiciens petits récupérateurs petit veut récupérer petit euh, ngeen dem ci télé yi di toj télé yi voilà Pastef a ngi diil Pastef a ngi moo déglu leen ma léegi dafa am loo xam ne sax man dama bëgg loo xam ne dama bëgg ngeen comprendre ko dama bëgg ngeen comprendre xam nga rek mooy noppalu leen waay peine perdue dimbali leen ñu ngir yàlla noppalu leen waay yéen booy yi dem nañu kasu ñu génn ñu ne la sonko la ñu bëgg booy yi duma nañ leen fetal nañ leen ñu ne leen sonko la ñu bëgg ñun jàpp nañ ñu bàyyi ñu ñu ne sonko la ñu bëgg mag ñi jàpp nañ leen bàyyi leen ñu ne sonko la ñu bëgg sëñ si nee nañu sonko la ñu bëgg jigéen ñi nee nañu sonko la ñu bëgg mag ñi sonko la ñu bëgg xale yi sonko la ñu bëgg ba léegi yéen a ngi sonko noppalu leen billaahi wallaahi tallaahi lazim laa la wax sonko lu mu mën a def ci àdduna bi ñun moom la ñu bëgg gis nga da peine perdue vous n'avez pas compris lii def ñu ëpp doole boole leen newoon tey Sonko buñ ko indi ñu ne coupable na rey na juróom fukki nit ak juróom ak cinq cent cinquante ak yeneen deux cent soixante quinze ñun bëgg nañu noppalu leen reposez-vous vraiment peine perdue defe naa concept boobu ngeen comprendrewul vous n'avez pas compris que Sonko et dans les cœurs des gens on est amoureux de lui est-ce que mas ngeen seetaan film Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde xam nga ban film la mooy ñaari gangster la gangster bu góor la bandi bu góor boo xam ne sawaay ay agressé ay banque ay rey ak nit la benn xale bu jigéen nopp ko ba bañ koy fetal xale bu jigéen bi dafa ñëw taxaw ñu fetalaale ko boo leen di rey Sonko da ngeen ñuy reyaale noppalu leen peine perdue on Si Sonko est sale, on lem S'il le propre, on l'aime. S'il est joli, on l'aime. S'il est moche, on l'aime. S'il tue, on l'aime. S'il tue pas, on l'aime. S'il veut pas, on l'aime. S'il veut, on l'aime. noppal leen seen bopp loolu mooy problème bi est-ce que mës ngeen gis xale bu jigéen jàpp bandi nopp ko ah milliardaire ba nekk fële xale bu jigéen bi di ko mbaraan di jël di jox milliardaire ñun dañ leen di mbaraan donc ci Sonko lañ jëm voilà noppalu leen ku ñëw it da sonal sa bopp damane ne dimbali leen ñu ñun Sonko la ñu gëm ñun Sonko la ñu gëm gëmuñu leneen Sonko képp la ñu gëm man dégluwuma am na ku bind ndax tu as entendu Mame Diarra Fam pourquoi moi je vais perdre mon temps précieux là pour écouter Mame Diarra Fam vraiment c'est Sonko qui a élu Mame Diarra Fam pourquoi moi je vais moi le temps précieux là je vais le gaspiller ñii nekk assemblée nationale di tël di tël yëpp Sonko leen fal Sonko moo leen fal la vérité ñi nekk assemblée nationale ni yëpp di tëlli tëlli Sonko moo leen fal même les députés de Macky Sall Sonko moo leen fal donc noppalu leen peine perdue Ousmane Sonko lañu ñu gëm tey moom la ñu gëm ëllëg moom la ñu gëm illaaw ginnaaw ëllëg projet de loi amnistie dama ciy ñëwaat tuuti rek ngeen xam li ma wax Sonko bëggul ku voté benn crime de sang maanaam benn crime de sang crime boo xam ne deret tuuru na ci rey nañ ci ay nit def nañ ci Sonko voté wul voté loowul ko kenn mais nag député yooyu fa ne ils sont assez conscients lépp luy bénéficier Sonko di bénéficier Pastef danañ ko voté incha allahu rabbi dimbali leen ñu nag ku mer sa problème la ñun diluñu kaalis xaalis tappalewuñu xoolal Farba Ngom mu jaxasoo xamul lu muy wax toog ci diggu assemblée nationale di tuumalaat Dame Mbodj di tuumalaat Clédor Sène di fen di sos dinaa leen jox benn secret bu ndaw est-ce que xam ngeen ne far ba ngoom mii ngeen di gis yéen a ngi ko bi ñu ñëwee fii ci Amérique ñu attaqué jël sama baafal maanaam sama baafal sama baafal man baafal bi ma moom ñu jël ko maa ngi nii won leen baafal bi xaaral ma ñëw won leen baafal bi léegi ngeen gis ñu ñëw jël sama baafal sàcc ko sàcc voilà kii nga xam ne moom mooy euh, euh, le le truc euh, le coordinateur de l'APR coordinateur APR mi ngi ni kii moo sàcc sama baaful yéen a ngi gis mi ngi nii mbuxuri bii moo sàccoon sama baafal bi gis ngeen ko dinaa leen woon mbuxuri bii moo jëloon sama baafal mi ngi nii ngeen di gis xool leen mi ngi nii di jël sama baafal xool leen xool leen xool leen Mbuxuri xool gis ngeen Mbuxuri mi ngi nii di jël sama baas bi xool leen xool leen ngi nii di jël sama baas xoola voilà xoolal xool leen bi ñuy jël sama baax xool leen xool leen mbuxuri jël sama baax xool leen xool leen voilà voilà mbuxuri mii moo jël sama baafal xam ngeen lu Farba Ngom def xool leen boo leen xoolee mbuxuri xool leen fii yéen ngi gis mbuxuree ngi sëgg di jël sama baafal bi xool leen mi ngi nii sëgg di jël sama baafal bi caméra yi jàpp ko en temps réel flagrant délit xool leen ko gis ngeen muy sëgg di jël baafal bi gis ngeen ko gis ngeen mbuxuri mu sëgg jël sama baafal àdduna yëpp gis ko xam ngeen lan la ñu def waa APR dañ ma woo benn ngoon ñu ne ma Tunkara ma ne waaw ñu ne mën mën nga ñëw jël si sa baaful ma ne leen ah ñu ne waaw ma ne fu ma koy jël si ñu ne ma maison du Sénégal man leen ah ñu ne ma waaw ñu ne ma mais boo ñëwee ci porte arrière bi comme ñaari porte boo ñëwee ci porte derrière bi nga taxaw foofu ñu indi la baaful xam nga loolu c'était prévu pourquoi pour ñu am rek sama benn photo buy wane ne man maa ngi jëflante ak ñoom je ne suis pas tombé dans la piège lii ngeen di dégg Farba Ngom di manigancé di fabriqué nii yëpp dafa bëgg a divertir sénégalais yi ci li nga xam ne mooy li concret yen xam ngeen ne Dame Mbodj du tappale xam ngeen ne Clédor Sène du tappale xam ngeen ne Ousmane Sonko du tappale xam ngeen ne ku bëgg xam ngeen ne naa fekk man bëgg Ousmane Sonko ñun ñi ànd ak Ousmane Sonko du ñu tappale duñu ñu njuuj njaaj du ñu wuruj du ñu warak dañu gëm réew mi te di dox ci mën-mënu réew mi te di dox ci baax-baaxu réew mi te bëgg a suñu réew gëmuñu seen ndey ñun gëmuñu leen noppalu leen peine perdue assemblée nationale patriotes yi lay waxal restez derrière nos députés bàyyi leen naa fekk bàyyi leen nitu xalifa Sall yi ngeen topp ak yeneen politiciens yii di leen gëmloo ne oui c'est la bonne vous connaissez bu leen leen faale ndeyam déglu leen ma ne les écoutez pas ba muy metti gisu leen leen bañ leen di tëj gisu leen leen ba ngeen di génn kaso yëgu leen leen du ñu yóbbu lekk seen kër ndey yi du ñu yóbbu lekk seen kër baay yi yéen ñi ñu jàpp wax leen ma benn nit bu ci feebar ñu ne xalifa sàll moo ko faj ak ay nitam amul benn nit bu ci gaañu xam ngeen Pastef ñaata nit lay faj xam ngeen Pastef ñaata nit lay xool xam ngeen Ousmane Sonko lan moo ko bàyyi kaso ba léegi parce que nee na du génn tant que patriote yëpp génnuñu mais gore leen ne tek teg seen làmmiñ lem seen geen ne rukk toog ci lii projet la ku parewul pour projet bi demal Matam wala nga dem Dagana wala nga dem Sine Saalum sa problème la ñun pare nañu te xam nañu ne dans ce projet dina am ay gàllankoor dina am ay jafe-jafe dina am ay question dina am ay difficulté dina am ay complication mais nit a ngi dund di feebar donc projet bi fa la toll on va sauver ce projet à tout prix na fekku politiciens yi ngeen di dégg yor seen làmmiñ ku nekk je vais voter je ne pas voter laaj ko ñaata nit moo nekk ci kaso bi yoo xam ne sey nit lañu laaj leen ko ne leen lan la famille Ousmane Sonko di lekk kala yi nekk ci kaso bi seen famille yi lu ñuy lekk laaj leen leen focus leen Ousmane Sonko est un génie politique Ousmane du deal du jël xaalis du jaay ngor du jaay nit du def dara mais nañ ko déglu nañ ko déglu nañ ko déglu déglu leen Ousmane Sonko te ngeen soutenir suñu député yi yéen ñëpp dem leen ci seen profil ndayam ngeen bind je soutiens nos députés je soutiens nos députés soutenir leen suñu député yi suñu député yi ci kàddu Ousmane Sonko la ñuy way soutenir leen les députés de Pastef soutenir leen députés yi ñun ñoom moom réseau yi naka ngeen di toogee fii yéen ñëpp ngeen di bind ay waxi dof ay voilà passe ne passe pas kan moo fi passé wala ko passé wul laissez les députés du Pastef faire leur job yow mënuloo nekk ci biti nga bëgg a nekk milieu de terrain nekk attaquant nekk buteur dimbali leen ñu il faut soutenir les députés loolu mooy seen liggéey soutiens ton camp ay waxu xalifa Sall dafa jar door dóor dóor dóor doom ay waxu politicien machiavélique kii dafa jar door doom ils son en de faire de la récupération politique te du ñu am dara ñoom rek ka xamul ne dee nañu c'est des morts politique voilà c'est des morts politiques dama ne soutenez nos députés loolu mooy seen liggéey soutenez nos députés loolu mooy suñu liggéey Soutenons nos députés et soutenons Ousmane Sonko. Soutenons nos députés. bàyyi leen ñële yow ñooñu xam ngeen ne du ñu wax katu dëgg du ñu jëf katu dëgg yéen Ousmane Sonko dina wor ku leen yee yéen trois heures du matin celui qui s'est sacrifié la vie il s'est battu pour nous il a sacrifié la vie de sa famille celui la va nous vendre loolu mënta nekk Ousmane ragalul kaso nee na ñaar fukki fanu kaso walla ñaar fukki fan wala ñaar fukki at ça ne fait pas de différence pour lui focus leen li metti xolu Ousmane mooy mu war a toog njabooti yëpp man damay wax ak ay nit yoo xam ne dañ may woo ne ma tunkara man doom bii ma am ci biir kaso bi moom rek laa yaakaar moom moo daan dem liggéeyi indil ma mille francs bu ma dépensé bu ma leen wonee samay facture Western Union wala samay facture euh, nu mu tuddati Orange Money man dama mayee ba amatuma lu ma mayee j'ai tout donné te Sonko loolu lay def waa Pastef lool la ñuy def vous connaissez le parti de Pastef combien il dépense sur les personnes focus leen man focus ngeen bàyyi dof yi focus leen Ousmane Sonko du ñu jaay Ousmane Sonko mënuñoo jaay Ousmane du jaayaate ñiy jaay xam nañ leen dañ ko bëgg a salir ils essaient de le salir ils ont passé par tous les moyens c'est pas possible parce que Ousmane dafa set Ousmane du sàcc du fen du tooñ man lu Ousmane def d'accord naa ko billahi lu Ousmane digal ma def ko arrêtez est un don de Dieu Ousmane mayu yàlla la bàyyi leen bandi politiciens yi dañu dee ils sont en de tourner des films li ngeen gis ni assemblée film la dañuy tourner film bu ñu paree kenn kenn ci ñoom quatre-vingt-dix pour cent de ces gens là c'est des vendus jox nañu leen xaalis lekk nañu ay jaay seen bopp lañu ay doom yaram lañu Ousmane du jaay boppam yéen xam ngeen loolu Ousmane li ko gën a métti ci àddina tey famille Mariama Sagna ba léegi Ousmane moo leen di fayal école Pastef ñoo leen di fayal jàng bëgguma ko wax nag par tuutal leen déedéet mais il se sent coupable bépp famille détenue boo xam ne mi ngi woon ci biir kaso bi Ousmane mi ngi supporter seeni ay famille Ousmane du nelaw guddi naka ngeen gëmee Ousmane mën a tëdd di nelaw guddi Mariama ngi këram Adja ngi këram jëkkëram a ngi ci biir kaso bi